bisimilah waaw gannaaw ba ñu sant yàlla nuyu si ñaari waajur waaw ñu ngi tudd Youssou Seye ah. dëkk fii Colobane Guy Marius en face tali bi suñu atelier bi ngi nekk foofu waaw di wax si affaire de événement bi quoi événement boobu nekk na nekk na événement boo xamante ne téer doo ñoo ko gaaw fàtte ko xam téer xam ne événement ak ni mu daan xatee ak léegi dañaa xatee ñuy fanaan chaque jour kër bi daan na fekk ñu sonn duñ mën dara mais ku ñëw tey gis atelier bi ni mu mel tey nga xam ne téer yi gis ñu seen bopp téer boo leen dem tam loolu lay wax même même question lay wax waaw def li bi ñëw moom mbaay feew teenu lu bëri teenu lu bëri te feebar moom mbaay ñu ngi yàlla ñu ngi ñaan yàlla mu jógee fi rek ñu ngi ñaan yàlla mu jógee fi bu baax a baax te yàlla mën nag yàlla nag yàlla def di wax ne acte bi ngeen def tey acte bu rafet la quoi ñëw si téer yi ku xam téer xam ne xam nga événement quoi xam nga événement ni mu daan mel waa ñëwee ñu daan ñëwee heure bi daan na fekk ñu xat mais da ngay ren da ngay ñëw indi sa tay ñu ñawal la ko tay nga jël si ko tay mais ku xam téye dëgg xam ne téye daan téye sa ñaw ba bu ñëwee suba wala ginnaaw suba heure bi daan na fekk fii xat mais ak coronavirus bi ñëw empêché lu bëri xam nga li téye ay gàmmu ay màggal fii xam nga ne loolu du ndaw quoi waaw loolu moom du ndaw wax dëgg yàlla. waaw daan fekk daan fekk ñuy fanaan wax dëgg yàlla fekk ñuy fanaan fanaan yu sax mais dañuy obligé di mujj di tëj atelier bi di tëju si biir di di mën di ñëw ndax ñu joxe ñëw jàmbur yi ay benn benn ñëw rek ay ñëw dañuy mujj di di tëju si biir di mën di di mën di livrer ñëw yi ndax boo ko deful rek doo ñëw ñu nekk Colobane bi moom ñu ngi sant yàlla moom ndax am nañ seen kër yi jege nañ fi ñu ngi mën di nekk si biir di liggéey ñu ngi mën di ñu ngi mën di limee mais par rapport ak ñi nekk ville quoi ñi nekk ville moom day affaire day merci moom day merci ñoom trop ñu nekk kolal giro ñu ngi dañuy mën a dugg suñu kër yi dugg suñu atelier tëju si biir di mën a ñëw kon ñu ngi sant yàlla si loolu waa xam na xam nañoo arrangé si benn côté bi non yàlla def na ne ñun suñu kër nañ nekk quoi yàlla def na ñun suñu kër suñu kër nañ nekk dafa liggéey dafa dóor waar waaw bi ñu doon lance appel ñun moom xanaa kiñ dëkkal rek moomul si dëgg la jëlagul amagul fee amagul benn fenn fuñ ko fal te ñoo ñoo dëkk te ci politique lay yëngu ñu ngi ñaan yàlla mu geesu ñu rek ndax affaire corona bi jëloon na ay masque tas ko si téere yi jox ko yu bëri loolu moom lu rafet la ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yokk rek ba yàlla def ko mu jël maire bi rek te barke Seydina non am na téere yoo xam ne jot nañ si mais man moom jotuma si am loo xam ne man jotuma si mais ñu ngi sant yàlla daal waaw athlète mu ngi tudd Daaru Karim Couture. nekk en face tali bu bees rek boo jaadee si côté guy boo jaadee rek suñu athlète mu ngi foofu foofu ngi dóoree waar. 76 840 37 33. waaw la mooy numéro téléphone bi. waaw waaw li ngeen def acte bu rafet la ndax yéen a ngi dëkk si colonne bi mu di doxal liggéey bu am solo di jël téyeer te loolu loolu jaar yoon la loolu baax la. yeneen ñaanal yàlla ngeen mu kawe rek ne mu ngeen am teel ak yooyu noonu quoi waaw comme ngeen ngeen abonné ci site bi bu baax sax. waaw ñun moom waa Guy Marius ñu ngi si gis suñu bopp.